li mu liggéey lis yéene liggéey lislaam ci toolub Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu man ko def ni ma ko bëggee te ànd ko ak moom di indi ak cantam ak akum nuyoom ak ki ñaanam xam naa dañ koy teg ci loxol Serigne Abdoul Ahad mi nga xam ne moo doon coordonné liggéey bi mu jottali ko mboolem mbooloo mi muy cant goo xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem ci liggéey bu rëy rëy bii nga xam ne ñi ñoo ngi ci tey ñaan mu wéy muy daare cheikhul xadim ji nga xam ne moom lay taxawal nga xam ne naka jekk nañ koy waxee mooy rek daare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ci sahabatul kiram jaar ci na yi ñëw ci asalafu saalih ba yegsi ci cheikhuna al xadim radiallahu anhu mu jël liggéey boobee na ko sallallahu alayhi indee woon indi ko ci nun yar ci ay nit tàggat leen ci ñooñe ñu tasaaroo ci réew mi di ko yaatal mboolem ñi nga xam ne ñoo ko fi nekk doon itam nekkoon ca liggéey boobee ba yàlla dogal mu si tey ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa kon waxtu wu ne dañuy wax ne sëriñ bi moom li yonent bi sallallahu alayhi wa indi woon rek loola lay jàngale loola moo fi nekk ba ndëgë ni loola nag niñ koy tënkee ci jota ci jamono ji ñu toll mooy loo xam ne ci kàddu sëriñ bi lañ koy jëlee mooy al ilmu naafi wal amalu saalih wal adabul mardi kon bépp xam-xam bu am njariñ sëriñ bi dafa bëgg ñu di ko jànge ci daaray sëriñ Tuubaa ji nga xam ne sunu borom defalal na ko ko sunu borom defal na ma jàngukaay boo xam ne képp ku bëgg xam-xam bu am njariñ man nga faa ñëw jàng si ku fi jàng ba noppi it na nga dem yaatalaat xam-xam boobee ngir àddina mën koo jariñoo te dara génn ci alxuraanul karim ji nga xam ne moom mooy mooy mooy ndàmbul xam-xam mboolem xam-xam yi am njariñ ñi ngi ci biir eh, ba daara ji biñ ko tàmbalee itam liggéey bi noonu rek lay doxee te ku ne xam na ne loxal arabiya ma ñëw ci li nga xam ne moo tax ñu tase tey kon mooy alquran moo nu booleek moom ndax jafe na lool nit ki dégg alquranul karim jekku ko nam ko war a jekkoo muy bataaxel bu nu borom bi subhaanahu wa taala jox moo mu indil nu dunduk àdduna gu teey gu sell muy texeek àdduna ak texek àllaaxira loolu nag dafa ñëw ci làmmiñu arab muy lam làmmiñ làkku yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax loolu mënuñu koo ñàkk jàng sëriñ bi ci boppam itam li mu bind kenn xamut nu mu toll kenn xamut nu mu toll waaye gisaguñ lu sëriñ bi bind te te ci làkku arab boobu moo tax mu doon lu am solo ci liggéeyub Cheikh Mouhamadul Mountakha bii nga xam ne alquranul karim ni ma ko waxee mooy jiitu te mooy ndàmbul xam-xam waaye mooy mooy nag al lisaanul arabi al kon buñ jàngalee alquran gone gi mu mokkal ko faw war naa xam nag bataaxel boobu nu mu koy jariñoo mooy lu nekk ci biir te lépp a ngi ci biir lépp lu ñu soxla ci àdduna ak àllaaxira mi ngi ci biir alxuraanul karim moo tax bu jàngee alxuraan ba noppi am na njàngeen wuñ koy jàngal woo xam ne moo fi téye lislaam ba mu yegg si fii te mooy li ñu tuddee njàngum majaalis majaalis doon njàng moo xam ne sunu mag ñu baax ñëpp nga xam ne seen seen seen seen njàngale moo fiy wéy ba naga ni njàng moom yi moom lañ doon ci lañ jàngoon moom lañ doon jàngalee loolu itam ñu taxawal ci anam goo xam ne gu yaatu lay doon waaye gu tolloog jamono ndax Cheikh Mouhamadul Muntaxa waxtu wu ne daf ñuy wax al asala wal muasara aw al asala wa tajdid mooy li fi nekkoon la ñu xam sàmm ko téye ko waaye dox nag fi jamono toll mooy xam li jamono laaj ci xam-xam ñu xam ko moo tax am na majalis boo xam ne gu dëppook jamono lay doon nga xam ne xam-xam yi ñu war a jàng yëpp dañ koy jàng waaye nag dañ ci am ay diplôme yoo xam ne bu njëkk baaxawuñ ko woon ci majalis yi kon bu tolloog jamono lay doon asaala baa ngi fi waaye muasara baa ngi fi mooy tolloog jamono waaye am kulliya dirasatil islamia wal luxa al arabia ñoom nag wal arabia la ñuy wax man waaye man wal luxa al arabia laay wax xam naa ne loolu <laughs> linguiste yi dañ ci wax dara loolu li ma bëgg a wane rek mooy na nun jàngunu aw làkk ngir ngir ngir ngir ngir ngir laneen waaye xam-xam la ñuy jàng te làkku làkku arab bi nag dañ ko mënta ñàkk ngir xam alquranul karim waaye ngir mën koo jëfandikoo ci sunu diine ak sunu ibaadaat euh, moo tax boobu doon bu am solo nag boo xam ne moom lañ bëgg mu njëkk a tijji ci UFR e yi nga xam ne ñoo nekk ci mu jàmmax bi wala mu nekk ci daare Cheikhul Khadim wala mu nekk ci complexe scolaire universitaire bu Cheikh Ahmadul Khadim li ko waral mooy xam-xamu arab dafa doon ni ma ko waxee mënuñu ko ñàkk waaye ñu soxla ko ba doon ko wuti fu nekk boo gisee macha allah ñi nga xam ne ñoo doon def liggéey bi ñoom ñëpp ñi ci gën mën naa ne ñoom ñëpp sax wala ñi ci gën a bari ci eh, eh, université yi nekk ci dëkki arab yu gën a mag yi lañ jànge ñii jànge madinatul munawara ñii jànge mak eh, riyad ñii jànge jaamatul azhar Maroc Zeytoun maa lim ñëpp da université bu am solo ci kii bi rek bu am na ñu fa jógee ñoo xam ne ñu ngi liggéey fii ci ci daara ji ñu bëgg nag def fi boo xam ne moom la am ca yooyu yëpp dafay am waaye day doon nag sunu boobu bopp maanaam dañuy jël xam-xam ba fa am njariñ al ilmu naafi indi ko waaye dëppale ko nag ak noonu Sénégal yi li nga xam ne moom lañ soxla ci xam-xam ndax ñun ñëpp mën nañ koo wax ay jànkat rek fi ne amaguñ ba tey école boo xam ne école Sénégal la école Jules Ferry fi nekk école yu jóge ci dëkk arab yi fi nekk waaye noonu Sénégal dañoo war a am école boo xam ne école Sénégal lay doon te loolu mooy liggéey bi ngeen doon def tey mooy kulliya dirasatil islamiyya wal lughal arabiyya fay jàngale taarixu Sénégal mooy Sénégal ngir ëllëg gone yi fi génne xam Sénégal xam sunu magu démb ñu baax ñi fi nekkoon xam sunu aada yu baax yi fi nekkoon sunu cosaan yu baax yi fi nekkoon nga xam ne moo nu sàmm moo nu indi ba nu yegg fii waaye ñu mën koo tatwir nag ñu mën koo yëkkati ba nag mën a toll fi nga xam ne fi la jamono bi toll waaye bu ñu tasee fa nga xam ne ñëpp dañ fay indi ak di fa jëlee nu am loon mën a indi noon te loolu bu fekkee li ñu jëlee ci àll ba rek la ñuy indi ña ko moomoon bu ñu fa indi te borom bi subhaanahu wa taala ci baaxam lu mu jox keneen ku mu mën a doon ci àdduna bi jox na ko Sénégal buñ ko xamee niñ ko war a xamee téye ko niñ ko war a téye di ko jariñoo duutu ñu jëgaani fenn moom kay nit day woote nu ñëw nun indi leen am nga indi li nga am nu xool luñ soxla nag ca la nga am ñu jël ko yow it loo soxla ci noonu ñu am jël ko waaye nekki al toppi moom sunu mag ñi tere woon nañu ko rawatina Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu tere woon na ko bu yàgg kon loolu Cheikh Mahamadul Muntaxa di wax na nañ jàng sëriñ bi te xam ko loolu dafa war a tàmbali ci lii ngeen doon def mooy jàngal ndaw ñi ñu xam Sénégal li fi nekk ci ñu baax li fi nekk ci jikko yu baax li fi nekk ci njàmbaar li fi nekk ci jom li ñu amoon ci fit li ñu amoon ci bëgg seen bopp bëgg seen bëgg seen bëgg bëgg li leen yàlla defal ñu doyloo ko yëpp ñu jàngal ko ndaw ñi waaye xayraat na xéewal yi yàlla defal fii ci koom yëm ñu defal ci suuf si nu mën ko jariñoo te loolu bu nit ñi xamut seen bopp ba tey jàpp nañ ne rek lu baax lu ne bitti la war a jóge li ñuy wax patriotisme wala wala xaw ma nu ngeen ko mën a tuddee loolu itam dafa bokk ci li nga xam ne gone yi dañ koy xamaale ci buñ xamee réew mi waaye sun borom xam-xam yu baax yi fi nekkoon nga xam ne ñoonu sàmmal réew mi tàmbalee ko ca Cheikh Omarul Fouti Ceerno euh, Souleymane Baal di wàcc si ba agsi ci mag ñu baax ñi Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mi nga xam ne moom moom bi te yaataloon nangu loon ñëpp seenu baax Sidi El Hadj Malick Sy El Hadj Abdoulahi Niass Cheikh bu Kunta mboolem ñi nga xam ne dañ fee nekkoon ñu jàngal leen ndaw ñi ñu xam li nga xam ne ñoom indi nañ ko ci diina ji waaye xam-xam yu rafet yi nga xam ne bind yu am solo yi nga xam ne taalif nañ ko ñu mën koo jàng danañ ci xamaale ni ma ko waxee suñu bopp waaye danañ ci xamee ne que nu nit danoo war a indiwaat leneen yokk ñoom wala yaatal ñoom loolu ñu fi indi woon ba bu àddina taxawee di joxe nu nitam nu mën a indi li nga xam ne am nañu ko loolu am solo la waaye ngeen boole ci itam jumtukaay yi nga xam ne ndax làkk jumtukaay la te mën mënee su ko ñàkk muy làkki réew mi waaye làkk yi nga xam ne itam adduna bi moom la ñu ëpp lu ñu jëfandikoo làkk woowu itam ñu mën koo jàngal ndaw ñi ba ëllëg ak si biir dootuñu am kumpa waaye dootuñu am barrière ndax làkk waratut doon barrière waaye liggéey yu mag ñooñu itam ñu mën ko cee yaatal ba mën ko yóbbu ñoom itam ba keneen xam ne kat noonu noo koy njëkk jariñoo noonu waaye keneen ku soxla itam man cee jariñoo kon jàpp naa ne liggéey yi ñu fi doon jàll yëpp am na solo waaye bii benn ëpp ko ci solo mooy nit ki dafay nekk kulliyat dirasatil affaire islamique ak langue arabe waaye day jàng nag Sénégal taarixu Sénégal jàng mag ñi liñ bindoon te bind ko ci làkk arab muy loo xam ne kenn xamut nu mu toll làkk wala fii liñ ci def ci liggéey te ñu war koo mën a jariñoo kenn xamut nu mu toll yeneen làkk yi lu mel ne pulaar lu mel ne séeréer ba àgg ci yeneen làkk yi nga xam ne itam yëpp bëgg nañ ko ci dugal bu soob yàlla kon daal ñu ngi leen di sant ci turu sëriñ bi di ñaan suñu boroom gën ñoo gàttandu ak tawféex ci barkeb sëriñ bi te nu xam ne liggéey bu rëy rëy doon te ay borom yi xam-xam Sénégal kenn du ñëw duñu ko soppil niñ koy soppee nag mooy yar ndaw ñi jàngal leen ñu xam li war a xam ñu def ci ñoom bëgg réew mi gëm ne itam xayraat wala yiw yàlla def ci àdduna bi def na ko Sénégal waaye doomi Sénégalais yi ñoo war a góorgóorlu ngir man koo jariñoo sunu borom tàggatal nañu lépp loo xam ne dafa nekk ngir ñu mën koo jariñoo wala si saxara lakum ma fi sama wa ma fi l ardi jamian minhu wala si saxara lakum ma fi samawati wa ma fi l ardi ma baynahuma waaye loolu nit ki bu ko xamul du ko mën a jariñoo te fexe ba itam jëmbat ci ndaw ñi ne danoo war a toog fii ci Sénégal defar ko te xéewal guñ soxla man na fi am fekk am na fi ba noppi waaye nag gëm ne rek lu baax lu ne bitti la jóge loolu moom ci ndaw ñi dañ ko war a génn ci seen bopp xam ne demewul noona kon lii liggéey bu am solo la ñu ngi ñaan suñu borom euh, dëgëral leen te yàlla fay leen coono yi nga xam ne yéen a koy def di sant itam ñi fi tase ndax ku ne xam na ne biñ présenté woo ñëpp ay sommité lañ te bañ tàmbalee liggéey bi ba tey ñooñ ñoo liggéey bi jàpp naa ne bu noppee waxuma la Sénégal jariñoo ko waxuma la Touba jariñoo ko waaye Afrique gépp ko war a jariñoo si te am na ñu tàmbalee wax lu mel noonu te xamaguñ dëgg-dëgg liggéey bi nu mu demee kon li ngeen di def yéen ñu koy def xam ngeen ne def ngeen lu baax waaye dayo bi dëgg jàpp naa ne sax xamagu leen ko te di ko def nag ak ngir xidma kenn ku nekk ci yéen yéenam lay doxee ak pas-pasam gëm ne li ko yàlla jox ci xam-xam daf ko war a jariñewaat aw askanam daf ko ñu war a jariñewaati bindeef yi te borom xam-xam yi dañuy wax ne xam-xam mooy loo xam ne loo ko gën a joxe mu gën a yokk lu nekk mën ngaa jàpp ne boo ko joxee mu wàññi ko waaye xam-xam moom loo ci gën a joxe day gën a yokk kon yàlla yàlla fay leen sëriñ bi sant na leen gërëm na leen ñaan itam yeneen i liggéey ci topp yëpp itam me me mel nii wasalaamaaleykum wa rahmatullahi